yow ak euh, waa Pastef en l'occurrence le leader Ousmane Sonko les relations ne sont plus au beau fixe elles sont exécrables euh, pour ne pas pour ne pas trop exagérer mais danga wax sànq benn wax bu am solo nga ne il subit une injustice yow jàpp nga ne tey ce qui s'abat sur Ousmane Sonko euh, le dossier euh, de diffamation dans lequel il a été condamné euh, avec Mame Mbaye Niang le dossier de viol contre Adji da nga jàpp yépp ne il est innocent il est victime. Euh, Maïmouna du ma fi indi tey mooy waxtaan ak Sénégal yi man Barthélémy Dias dama am lu ma doy sëkk. waaw mais conviction boobu est-ce que est-ce que est-ce que lu leer la ci yow est-ce que ba tey yaa ngi jàpp ne il est victime d'une manipulation comme il semble le faire Maïmouna Maïmouna dafa am ñu soog a découvrir que veut dire l'injustice moi depuis plus d'une décennie man je suis un assassin Khalifa Sall moom c'est un escroc Karim Wade un voleur am ku bees ku ñëw bokk ci groupe bi ñu ne moom violeur la man du ma assassin Khalifa Sall du escroc Karim si la volé wala nañu lu mu sàcc yow xam nga jigéen nga man xam naa viol amu fi lu ñu tuumaal mooy siif doomu jàmbur ak menace de mort yow xam nga kenn siifu fi kenn xam nga menace de mort amu fi lu fi am tey mooy benn stratégie qui consiste à liquider toutes les personnes qui empêchent le régime de dormir en paix et de se maintenir au pouvoir